أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته incha allah ñu ngi tàmbalee sunu dars tey ci téere bu bees bi nga xam ne moom la ñu ubbi bunt bi te mooy al usulu salaasa mooy ñetti cosaan ñetti mbir yoo xam ne jullit daf ko war a xam xàmmee ko ràññee ko jéem ko dund c'est parce que dafa bokk ci dundam jullit bi war na koo xam bu baax a baax a baax a baax toppatoo ko xam ko jàng ko ndax mu jéem koo wàcce ci dundam mën koo dund sunu boroom subhaanahu wa taala moo jaadul moo warlu ci jullit bi mu xam ñetti cosaan yi mu xam ñetti reen yi mu xam ñetti mbir yi moo tax boroom téere bi ki taalif téere bi te mooy cheikh Mouhamed Ibn Abdul Wahab téere boobu lañ jël waaye ki ko sarxa mooy boroom xam-xam bu mag bu ñuy wax cheikh Usaymin rahimahullah moom moo sarxa téere bi ñu taamu ko nag alxamis ci ngoon gu nekk daje ci ak yéen jàngalante sunu biir fàttalante ko ndax dinañu jëriñ ci sunu dund borom téere bi mu ne bismillahi ñu ngi tàmbalee ci turu yàlla bismillah mu ne ki bindi téere bi ibtada al muallif rahimahullah kitaabahu bil basmala iqtidaan bi kitaabillahi aza wa jal mu ne ki bindi téere bi tàmbale na téere bi ci turu yàlla mi bismillah lu tax mu ne dafa ci toppandoo def ci roy téere yàlla bi téere yàlla bi fan la tàmbale mooy bismillah loolu moo tax ki bindi téere bi moom it mu toppandoo téere yàlla bi ci bindam mu daal di bind ci njëlbeenu téere bi ci bopp téere bi bismillah ndax boo ubbee alxuraanu yàlla bi loo ngay njëkk a gis mooy bismillah lu tax lépp lu julli di def te waxul bismillah loolu du am barke kullu mri'in zibalin laa yubda'u fiihi bismillah fa huwa abtar yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam nee na képp kuy def dara tàmbale woo ko ci bismillah loolu du am barke loolu du baax sooy lekk waxoo bismillah li ngay lekk du am barke di nga lekk ba suur te du la amal njëriñ booy liggéey waxoo bismillah li ngay liggéey doo am barke da ngay liggéey ba sonn mun nga am xaalis de waaye xaalis bi doo am barke lépp looy def gis nga moo tax dafa bokk ci dund dund jullit sooy dugg ci duus nga wax bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith gis nga ñaan boobu bokk na ci bismillah booy tëdd nga wax bismillah bokk na ci bismika allahumma amutu ahya booy lekk nga wax bismillah da cee bokk bismillah allahumma barik lana gis nga dafa bokk ci dundu jullit looy def nga wax bismillah booy génn sa bundu kër sax bokk na ci ñaan bi nga wax bismillah mu nga kon ndeke dafa bokk ci sunu dund lépp lu ñuy def ñu wax bismillah booy tëdd booy lekk booy naan même booy yéeg ci oto balaa ngay jàng ñaan bi looy njëkk a wax bismillah gis ngeen kon loolu moo tax borom téere bi bi muy tàmbale bindi téere bi mu daal koy tàmbalee bismillah bismillah lu muy tekki mooy maa ngi tàmbalee maa ngi commencé ci turu yàlla maa ngi tàmbalee ci turu yàlla subhaanahu wa taala lépp looy def rek yow jullit bi fexeel nga commencé ko ci turu yàlla subhanahu wa taala mu ne ñaareel bi tàmbalee na ko ci bismillah pour lan atabarruk pour mu am barke pour yàlla def barke ci téere bi comme ni ko yàlla subhanahu wa taala commencé ci téereem bu màgg bi ñaareel bi mu ne arrahman kan mooy arrahman mooy yàlla moo tas yërmande ci àdduna ñépp mu ëmb leen mooy arrahman mu ne moom arrahman subhanahu wa taala mooy sunu boroom farrahmanu zurrahma alwasia yàlla subhanahu wa taala mooy boroom yërmande bu yaatu bi bu matale bi kon jullit na xam ne am na buur bu tudd arrahman ud'u allah aw ud'u arrahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna yàlla nee na su ngeen may woo bu leen neexee ngeen wax allah bu leen neexee ngeen wax arrahman bu leen neexee ngeen wax arrahim ndax yooyu yëpp turu kan la turu yàlla la boo ci commencé baax na yàlla sax subhanahu wa taala dafa tas ay malaaka yoo xam ne ñu ngi fii ci mbedd yi di dox sunu borom subhanahu wa taala nee na malaaka yooyu képp ku ngeen dégg mu may ñaan mu ne yaa rahman yaa rahman yaa rahman bu ma ñaanee ma may ko moo tax booy ñaan yàlla waxal yaa arhamar rahimin yaa arhamar rahimin yaa arhamar rahimin boo ñaanee yàlla yàlla may la loolu mooy arrahman yàlla mooy zurrahma mooy borom yërmande boo xam ne alwasia wa rahim zurrahma alwasila yàlla yërmandeem bi mu tas ci àdduna ñëpp a ko bokk jullit yi yéeféer yi mbindeef yi rabu àll yi lépp lu yàlla bind amma rahim nag rahmanu dunia rahimul axira yàlla yërmandeem boobu mu ngi koy jogleel al jullit yi alaxira loolu mooy arrahman bismillahi mooy maa ngi tàmbalee arrahman moo moo tas yërmande ci àdduna mu jagleel ko ñëpp arrahim mu yërëm jullit ñi alaxira lu mu ci teg mu ne i'lam i'lam mooy lan xamal xamal jàngal gis nga i'lam mooy xamal yàlla subhanahu wa taala wax na ci alquran faalam xamal annahu laa ilaha illa allah loo njëkk a xam lu mu mën a doon yàlla moo ci war a jiitu moo tax alquran bi muy wàcc lan la wax iqra bismi rabbika alladi xalaq mooy sooy jàng li nga war a njëkk a jàng li nga war a njëkk a xam mooy sa turu boroom iqra bismi rabbika alladi xalaq jàngal sa tur boroom xamal i'lam xamal na nga jàng nga xam al ilmu huwa idraku shay mooy xam dara loolu mooy xam nga xam dara jàng ko ala ma huwa alayhi idrakan jaziman nga xam mbir mi ni mu waree oto pour nga dawal ko foog nga fa nga xam ko jàng ko xam ko xam ni ñuy dawalee avion pour nga dawal ko foog nga jàng ko xam ko lépp lu mën a doon ci àdduna pour nga def ko mu baax foog nga léegi nag yow bu bëggee jaamu yàlla te xamoo yàlla nga bëgg a roy Muhammad te xamoo Muhammad nga bëgg a nekk jullit te xamoo lan mooy lislaam ndax dina baax du baax kon moo tax mu ne i'lam xamal i'lam jàngal lan ngay xam mu ne rahimakallah yal na la yàlla yërëm yow jullit bi mbokk yi kan ci ñun moo soxlawul yërmande yàlla ñun ñëpp ko soxla kan moo bëggul yàlla yërëm ko ñun ñëpp bëgg nañ yàlla yërëm ñu ku bëgg yàlla yërëm ko yàlla su la yërëmee mooy lan mooy da lay dugal aljanna dal nan yàlla yërëm pour yàlla yërëm nu nag foog ñu xam moom yàlla mooy kan li mu moom ñu jox ko ko ñu bañ koo jox bañ koo teg bañ koo dendale ak lenn wala kenn li mu moom ñu jox ko ko moo tax mu ne ilam xamal jàngal yëgal rahimakallah yal na la yàlla yërëm mu ne annahu li wóor tey mbir gis nga bu muy bu mu lay leeral xam-xam mooy lan al ilmu boobu mu la wax xam-xam te mooy nga xam mu ne wa maratibul idrak sitta xam-xam juróom benn mbir la al ula bu njëkk bi al ilmu wa huwa idraku shay ala ma huwa alay idrakan jaziman boobu mooy bu njëkk mooy nga xam mbir mi ni mu nekke ni mu amee ni mu wéree mooy bu njëkk saaniyan al jahlul basit wa huwa adamul idraki bil kulliya mooy réer ki xam ak ki xamul est ce que yem nañ hal yastawi allazina yaalamuun wallazina la yaalamuun ku xam ak ku xamul duñ yem moo tax pour nga nekk jullit foog nga xam boo xamul da ngay làmbatu rek taxankatu guddi ngay nekk taxankatu guddi xam ngeen lan mooy taxan mooy ut matt ngay ut matt nga dem ci àll bi ngay ut matt guddi ngay jël matt yi dugal sa saak est-ce que lépp loo jël dugal sa saak matt la yenn saa yi mun ngaa fekk jaani ñàngoor bu lemu xam ngeen jaan nga fekk mu tëdd nga jafe ne bant la nga jël dugal ci biir saak bi yenn saa yi fekk mun ngaa fekk ay dem àll ba yu wow dem àll ba yu wow nga jël dugal sa biir saak balaa ngay xam ne li nga jël lu ci ëpp du mat kañ la suba bëccëg nga këpp saak bi ci digg kër gi nag di xool matt yi nga indi ndeke genn wàll gi yëpp ay dem àll ba yu wow la lu tax nga jaxase dem nga jaxase jaawale dem àll ba yi ak matt yi lu tax nga jaxase ko parce que guddi nga dem demoo ci lu leer loolu moo tax booy jaamu yàlla te tegoo ko ci lu leer yaag waa ji dem àll ba di taxan dem guddi yéen a yem da ngay defee ne lu baax ngay def fekk yaa ngi yàq moo tax pour nga jaamu yàlla foog nga xam ñetteel mooy al jahlul murakkab wa huwa idraku shay ala wajhi yuxaalifu ma huwa alayhi ala wajhin yuxaalifu ma huwa alayhi beneen réer gi gën a garaaw nag mooy réer goo xam ne yow da ngaa yaakaar ne lii dafa weex fekk weexul dafa ñuul boobu réer moo gën a bon wala nga yaakaar ne kii dafa gàtt ne moom ku njool la nga yaakaar ne ku rëy la fekk ku sew la est-ce que kon xam nga ko nga ne man de xam naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne la mooy kan nga ni Màkka la juddoo Madina la faatoo Abdoulaye mooy papaam Amina mooy yaayam waaye ku ñuul ku ku la woon est-ce que xam nga ko xamoo ko parce que moom ñuulu lan la arab la xam naa yonent bi ñu ne sallallahu alayhi wa sallam mooy kan nga ni jigéen la woon xamoo ko xamoo yonent bi loolu moo tax réer bi ci gën a garaaw mooy réer bi nga xam ne dangaa réer li ngay wër nga réere ko ni nga ko yaakaaree du noonu réer boobu moo gën a bon moo tax jullit war a moytandiku réer ñeenteel bi mooy alwahm wa huwa idraku shay maa ihtimali diddi raji rajihin mooy def defle xam ngeen def defle moom dama yaakaar ne de moom la mooy alwahmu ah yow li nga moom la nga ni ah yaakaar naa ko de est-ce que li nga yaakaar ne moom la rek moom la suukar si nga yor nga ni waaw fekk yaa ngi yor mbuus xorom dafa weex de te dafa mokk est-ce que lu weex loo gis rek suukar la lu weex loo gis rek suukar sa kafe kon mbokk yi pour sunu diine wér fan lañ ko war a teg ci lu leer pour ñu am lu leer ci lan lañ koy teg ci xam-xam pour ñu am xam-xam ci lan lañ koy teg dem jàngi yonente bi nee na ku bëgg aduna demal uti xam-xam ku bëgg alaxira demal uti xam-xam ku bëgg ñaar yëpp demal uti xam-xam ku bëgg xam-xam nag demal jàngi alxuraan soo jàngi alxuraan nga xam sa boroom soo xamee sa boroom nga woo nit ñi jëme leen ci sa boroom kon mu ne i'lam xamal rahimakallahu yal na la yàlla yërëm yow miy jàng yow miy déglu dars bi yal na la yàlla yërëm mu ne annahu li wóor tey mbir yajibu war na alaynaa ci ñun taallamu ñu jàng ñu xam arbaa masail ñeenti laajte ñeenti mbir war nañ koo xam pour suñu diina baax foog ñu xam ñeent ñeent pour nga nekk jullit sa diine wér nga teg ko ci lu leer foog nga xam ñeent ñeent yi benn warul manqué benn warul manqué benn warul manqué da nga lim wax pour nga sa diine wér foog nga xam ñeenti mbir ñeent yi boo ci bàyyi da ngay lor sa bopp ñeent yooyu bu ci njëkk mooy ban al ilmu xam-xam mooy nga ut xam-xam xam-xam nag pour nga am ko waxuwa moom maarifatullahi mooy nga xam yàlla ku jàng te xamoo yàlla amoo xam-xam xam-xam biñ la wax nga ut ko mooy lan mooy maarifatullahi xam yàlla xam yàlla yàlla nag tey niñ koy xamee nuróowul ak ni ko waa Sénégal jàppee waa Sénégal dañoo jàpp ne booy xam yàlla da ngay ut kurus di zikri di yuux ba nga gis yàlla nga ni xam naa yàlla aka bëri tey ci réew mi ñu ne xam nañ yàlla gis nañ yàlla déedéet loolu du xam yàlla ku bëgg a xam yàlla da ngay dem jàng diine lislaam da ngay jàng alquran nga jàng sunna nga xam kan mooy yàlla nga teg ko place am waaye boo jàngul da ngay làmbatu maarifatullahi xam yàlla kon mbokk yi tomb bu njëkk bi fii lañ koy yemale ba alxamis bii di ñëwaat li ñuy tari mooy i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna taalluma arbaa masail al ula maarifatu al ilmu wa huwa maarifatullah dars bi ni ñëw ñu ngi tàmbalee maarifatullahi xam yàlla nan la ñuy xamee yàlla kan mooy yàlla fan la nekk lan la nangu lan la bañ nan la tudd ci ay turam ay melokaanam yu sell yu set incha allah alxamis bii di ñëw moom la ñuy jël asalaamualeykum wa rahmatullah